les moyens bi ngeen di utiliser Benno Bokk Yaakaar pour campagne on voit tous à chaque veille d'élection oto yi dañuy gën a bëri mobilisation yi bëri xaalis bi di circuler loolu aussi est-ce que xaalis bu ngeen moom la wala xaalis Sénégal bi ñëpp bokk la may ma ñëw xam nga tey bu ñu waxee ni par exemple euh, euh, suma leader fonctionnaire milliardaire la mm-hmm. mais ñi ko wax nañ indi les preuves xam nga dans ça ne vous dérange pas ce parce que Sonko 15 ans la def impôt. Mhm. cité góor gi la dëkk. kër goo xam ne da koo leboon bi mu koy paree fay yàggul ah. est loolu tey jii am naa ci ay preuve que ni moom moom daf ko leboon. waxam mhm. la rek. mais damay jàpp ne damay jàpp ne liggéeyam. Mhm. ak statut bu mu toll. parce que dans la fonction publique tamit non dans la fonction publique il faut savoir que ni dafa am hiérarchisation. kii li muy fayeeku ci tel ministère bokkul ak kee émulation yi muy am ci tel ministère kii catégorie euh, classe bi mu toll bokkul ak keneen ki classe bi mu toll donc kenn ku nekk dañuy am njott gu rafet ni yaa ngi nekk ci sa yoon te kenn ku ci nekk tam boo amee sa alal boo xam ne da nga laa leew doom bu la neexee nga jënd te bu ñu ñëwee nañ ñëwaat si question bi encore une fois on ne mhm. parle pas de mon leader on parle de la du financement des et ça doit faire l'objet de débat pour moi parce que lu nekk la loo xam ne muy pouvoir muy opposition dañoo war a toog concerté wu xool ban manière te mosoon nañu ko def ci benn dialogue. Mhm. xool nan ndax dañu war a financer les partis politiques est-ce que l'État dafa war soutenir les partis politiques moi je suis preneur ci benn côté parce yoo xam ne comme mu nekk wala euh, parti yoo xam ne dañuy doog a ñëw ci champ politique bi mhm. mais am na doole joo xam ne bu ñu ko bu ñu bu ñu leen ci jàppalewul peut-être mën na am am fu muy fu muy mhm. fu sooxee ci lan moom mooy seen euh, seen seen i paiement facture wala seen i déplacement wala seen i leneen ak leneen bu ñu ci dooleelul am parti pris dama bokk si ñi nga xam ne dañoo gëm ni dañoo war a soutenir les partis politiques mm-hmm. maintenant leur financement yi nga xam ne financement yi étranger la jógee am un député bu accuser un leader politique moi je crois que le plus simple c'est leader politique boobu wala ay ñooñam dem euh, ci mbax ne benn mm-hmm. leeral loolu parce que c'est pas la première personne muy Matar Diop bu def loolu mm-hmm. parce que dafa am ay précédent ba pare teg si ñaar nit ñoo xam ne même bu ñu leen ku mu neex jàppale leen ay nit ñoo xam ne euh, peut-être amuñu valeur ci sa ci say gis-gis mais nit lañ ñoo xam ne wax dëgg yàlla am nañ fu ñu dëkk am nañ vécu def nañ dara ci réew mi